kun di amaat mbégte lool ak contentement di dalal sunu gan gi nga xamante ni sun borom atte na mu teew ci plateau bi nga xamante ni moo di plateau spécial Ndiamé TV ci ñetti fanu weeru koor yi nga xamante ni la mu doon du ñu ci laaj waaye moom la ñuy laaj li nga xamante ni moom la Cheikh Moussa Cissé Ndiamé borom daaru woote lu jiitu loolu Cheikh Ilimane Cissé la ñu dalal Cheikh Ilimane ñu ngi lay nuyu.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 di jiital nuyoo ak ziyaare yi suñu xalifa général Cheikh Alaaji Keba Cissé ak mboolem yi rakkam di nuyu yokk ziyaar suñu sëriñ Seydina Aliou Cissé ibnu Cheikh Moussa radiyallahu taala anhu Baye Pape ñoo ngi lay nuyu te di la ziyaare bu wéree wéree wéree yaa góor yàlla yi nga àndal yëpp di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Cheikh Ilimane ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax di am mbégte wax dëgg yàlla ci plateau bi ñu la dalal ñu am ñetti laaj rek yoo xamante ni am nañ yéeney laaj la ko te bir nañ ñu buñ la ko laajee danga ñu ci tontu laaj bu njëkk bi nga xamante ni moom la ñuy laaj lan mooy melokaanu arifina billahi ci société bi. waaw bisimilah rahmaani rahim ah, melokaanu arifina billahi buñ ko bëggee gàttal danga naan mooy julli piir ci biir société bi buñ ne jullit nag. tey mën nañ koo taawil nit ñi déggee ko nu ne waaye jullit daal mooy ku wuyu woote yàlla te defaru ca buñ doon wax melokaana aarifana billahi mooy ki dégg woote yàlla mu wuyu ca te ku wuyu ko ne dees na la jox ku wuyu yàlla nag am leen luñ la jox lu dul yàlla aarif billah melom mooy ki wuyu yàlla ba am yàlla waaw moom de ci gàttal mooy ki wuy ji wooteb yàlla ba am yàlla moom mu doon fuuy est-ce que dégg ngeen ko ni nga xamante ni noonu la ko Cheikh Ilimane waxee nee na arifina billahi dëgg mooy ki nga xamante ni moo wuy ji wooteb yàlla ba am yàlla kooku moo di arifina billah Cheikh Ilimane ban aq moo am ci diggante sëriñ ak taalibeem waaw bismillahi rahmaani rahim aq sëriñ ak taalibe rëy na mënees na ko gisee ci ñaari wet yëpp ndax benn taalibe matal ci wut ku ko jokkale ak boromam dajeeg ku mankel yenn saa yi kiy wut ku mu defar yéege ko ci xadara yàlla matal taalibe ñoo mankel kon àq bi nga xam ni dox na ci diggante kii wuti yàlla mooy day dajeeg ki tudd cheikh al murabbi cheikhina cheikh ahmadou bamba xaadim rasul dafa wax ne ak googee nga xam ne sëriñ boobee dina jàpp jaam raxas ko ba mu set fóot ko ba mu set mu yéegeel ko ci xadara yàlla xamal ko boromam àggale ko ci boromam jeexal ko ci boromam daf na àqi kooku moo gën a màgg àqi nday ji jur ak bàyyi ji jur su mënut loolu ca doom àqi ki mën loolu ci doom moo féete kaw àqam moom ndax ak nday ak ak ak baay daf jëmm lañuy sàmm dinañ ko yafal dinañ ko yar dinañ ko sang dinañ ko sang ci ndoxum saayir dinañ ko sang ci ay malaani saayir waaye ruux gi sunu borom subhanahu wa taala amal affaire moom mu rabbi di sëriñ bu mat sëriñ moom la amal affaire te loolee su baaxee lépp jàmbi baax ki nga xam ne nag te bu noppee ci yow lépp baax ci sa borom kooku xaqam foo ko natt sa diggante ak moom romb na koy wëy waaye taalibe bi matal te sëriñ ba mankel xaq googit lu ko gën a yéeme amut ndax sunu borom subhaanahu wa taala dafa bind jaam ñi ba pare yëgle ne kullukum aatihi yawmal qiyaamati farda jaam ñi suñ la gëddee ngir sàkku ci yàlla seen borom fexoo ba jox leen yàlla joojee lu ko gën a doon kirim ci kaw suuf man xaw ma parce que ku antus ku ahlikum naaran yàlla daf la waxoon ne la musalal sa bopp ci première position bi ak say ñoñ boo wuyee sëriñ nag say ñoñ ñooñ ña gën a yell ci yow pour lay nekk ci yow ñu jëriñoo kon àq googu euh, Cheikh Pape bu fekkee dégg nañ la euh, mënees na ko gàttal ci ñaar yooyu mooy ñaari côté yëpp am na ci ñaari côté yëpp am na ci waaye daal boo ci mën a dégg amul bu ci tuuti ndax ki matal ci ab taalibe bu dajee ki mankil ci ab sëriñ yoreel la ko xàq gu nga xam ne kenn xamu fu ko yett taalibe bi nga xam ne dajak nag sëriñ bi matal mu mankil ah lu ko gën a doy amul ci kaw suuf de ndax ngërëmal yàlla ba ko sahaaba yi soxlaa suñu borom da leen gëdd ne leen laqad radiyallahu anil muminin is yu bàyyi xoonaka taxta jara te dëgg-dëgg yàlla gërëm na yéen ñi jaayanteeg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci suuf suufu garab ga kon bu ngërëm ba mënta xew lu dul nit ki dafa am jokkuwaay jokkuwaay nag lay tax nga jokk ci ba ngërëm fekk la mooy da ngay matal xàqi sëriñ taalibe bu taalibe Cheikh Moussa Sène Ndiamé borom Daaru doon na wax ne ku ma jox sa bopp te jox te bàyyi ma sa bopp su noppee ci yow dina la àggale ci yàlla sa borom ba nga kon xàq nga bàyyi paap euh, mënees nañ ne pour gàttal ko daal sëriñ ci taalibe moo gën a rëy xàq ndey ak bàyyi bu ko mënta xamal yàlla aqi taalibe ak sëriñ bu yàlla moo gën a rëy aqi ak bàyyi ci ci ci doom euh, Cheikh Ilimane laaj bi nga xamante ni moom laay tëjee mooy taalibe bi nga xamante ni leer na ko ni sëriñ bi muy jokk àggul ci yàlla mu jokk ci moom lan moo ko ci mën a fekk ëllëg yomal xiyaam sëriñ bi nga xamante ni taalibe bi jokk na ci moom te moom bir na ko ni mënu koo eggale ci yàlla mu bàyyi ko mu topp ko ëllëg yomal xiyaam yan daan la ko suñ borom mën a teg. waa bismillahi rahmaani rahim. Euh, Baye Pape ma euh, presque euh, laaj bi dafa dund dafa jóge dafa dafa feelu laaj bi ñu jóge ndax masalan Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yi nga xam ne tey yoonu murid bi Cheikh Moussa feeñ mooy sëriñub Cheikh Moussa radiyallahu taala dafa waxoon taalibe yi nga xam ne bu wut sëriñ jotee ci ñoom bañ fas yéene koo def daf na leen wax tabir rijaala xabla soxna na ngeen seet ki ngeen di jaayanteel balaa ngeen di ñëw di moom ndax nit dafa am ku moom ci boppam am ku moomul ci boppam nit koo séen lépp lu mu tàbbi te jeex ja fekk gu ko fa moo boppam waaye bu ko fa jeex ga fekkee moomutul boppam wàcce lam jeexe ko moom kon ki jël maanaam xàq maanaam nitu yàlla jox ko kum donut kooku moom lu ko gën a doon kirim man xaw parce que suñu borom daf ñaari jaam rek la am abdul muumin ak abdul kaafir jaam bi ko gëm ak jaam bi ko weddi jaam bi ko gëm la woo ci boppam waaye wooga mënut ñëw lu dul dafa teg ay bunt muy wasila wasila nag du du caaxaan aji jokk ju ñëw gis ki nga xam ne biir na ko ni kii mënu koo jokkale boromam mu jaayante fa kooku day gis na xéewal gis na mucc gis na yëkkati ko gis na ngërëm mu bàyyi ko fa jël safaanam parce que dund doomi aadama yàlla ba muy santaane yaa ayyuhal lazina amanu su ko waxee yonent baa nga ci awliyaaw baa nga ci yow taalibi bi ci kon bam lay sant ne la qu anfusakum wa ahlikum naaran nit ku nekk ci sa bopp ak say ñooñ sëriñ bu nekk ak ay ñooñam baay yu nekk ak i ñooñam waaye Cheikh Pape nit ki nga xam ni ak tef saayir bii lépp lum ci bëgg a wut fooyewu ko te fooyee digganteem ak ci dem jokk ci sëriñ bu ko àggalewut ubbi na buntu safara ci boppam sëriñ bi nga xam ne it biir na ko ne amalul àggale nit ñi ci yàlla mu nangoo toog palaasu ab sëriñ ci ñoom ubbina buntu safara ci bopam ndax amul wenn xet bu nga xamne ni ne duma dina wàcc ci ñoom lu jiitu suñu borom dina laaj ndax seen yoonent wa waxan nag ñoom aya qawmi ubudullaha ma lakum min ilahi ghayr amul ku ko waxul ci gor yàlla kon serigne da liñ koy topé du aw askan du aw melaw say yi ñu xam du ay moyen waaye xam-xam la bu lay jokkale ak sa borom subhanahu wa taala su amee am nga sëriñ sëriñ it li ko taxa doon sëriñ du sama baay fi newoon wala sama maama fi newoon wala suñu askan la taxut nit doon sëriñ li tax doon nit doon sëriñ diggante mag boromam mooy day nekk waarisu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci jamono nga xam ne jàpp jaam fóot ba mu set mu jébbal yàlla mi boromam ndax sëriñ lim njëkk a njëkk war a mën a gindee ko ci moom ne jaam ñi moomu leen yàlla leen bunt la ko suñ borom def pour mu yéege jaam yi jëme ci seen borom kooku nag xaadimu rasul waxoon na ne isbaana jahra annama suyuuxu haza zamani julluxum fuquux mu ne yéen taalibe yu yàlla man Bamba de maa ngi leen di baaxee na ngeen ndax li ëpp ci maas googee di ko wuyoo ay fiir lañ waaye duñ ay sëriñ li ëpp ci maas googee ay fiir lañ waaye duñ ay sëriñ kon nag li ci des mooy nit ki bu seetaanalul boppam kenn tooñatu ko ci kër yàlla kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ndeysaan jërëjëf Cheikh Elimane kaddu yi rafet na kaddu yi mat na te matale na sell na taalibe bi nga xamante ni mi ngi topp sëriñ bu xamut yàlla lii bu ko déggee dana doon ak gindeeku ci moom ba mu xam ni foofu mu jaar du yoon wa jaar na ca ñall wa ta te la wa ku ca jaar mën nga dox ba tàbbi sawara kon nag teg nga leen ci yoonu siraatal mustaxim mooy yéen ñi jébbalu ci sëriñ bu xamul yàlla jéem leen a uti wasila bu àgg ci yàlla te mën leen caa àggale